mu ne nee nañu sax bismillahi rahmaani rahim junni yoon rek saa yoo ko defee jënd nga sa bopp yàlla goreel na la ci sawara yàlla day yebal sax ku jéptaane ci asamaan ak suuf kooku di wax naa diw mi jàng bismillahi rahmaan rahim junni yoon day goreel naa ko man yàlla maa ko goreel siq ak moom dara loo koy fayu rek ñëwal ma fay la siqul moom mën nga siqal mu ne ku ñu wax acheikhu ahmad sëriñ bu ñu wax ahmad ibnu xusayn nee na am na wàll yu mag a mag ca soow woo xam ne dafa defoon bismillahi rahmaani rahim junni yoon muy wirdam nga xam ne bis bu ne rek mu def ko ñu ne ko waa lu tax mu ko daan def ndax daa jubloon bis bu ne yàlla goreel ko ci sawara yoral ko jéebtaane ne diw mi maa ko goreel ku siq moom dara na ñëw man maa ko ameel diw ameelu ko ndax loolu tax mu ko daan saxoo bis bu ne junni yoon mu ne waaw loolu tax wal yu woowu mu saxoo bis bu ne mu def bismillahi rahmaani rahim junni yoon def ko muy wërdam loolu nag lu yomb yomb la ndax bismillahi rahmaani rahim daa gàtt taweef ci làmmiñ nga xam ne buñ doon def njot te mënuñoo am limu ñaar fukk ak ñeent it buñ ko def loo fukk ak ñaar nga dal gis kenn ku ne def ko fi saa sa mu dal jàppandi lool loolu kon yow mën naa saxal gis bu ne kon ñu bañ a fàtte ne njot gi boo def muy bisimilahi rahmaan rahim yi fukki junne yu ñaar moo xam sa bopp nga koy defal moo xam da koy defal keneen bul fàtte ubbi ko ahudu billahi min ashaytaani rajimi benn yoon yéene itam li ngay def mu jotug sa bopp mbaa jotug ka koy defal man nga boo àggalee ne sunu boroom lii day dama ko yéene woon muy ak njot ci saa bopp mbaa daa ko yéene muy ak njot ci diw yàlla nga ko àggale ci moom def ko mu dik njotam